Ndiaye de loolu la mujjee nee na daal lépp sama loxo la ko teg bàyyi la lépp sama loxo. léegi da nga ci am xel ñaar. ah am naa xel ñaar kay. ndax déglu ma damaa woo bàjjan woo xadi baaba ne leen Ndeye Ndiaye responsabilité xew bi jox na ma ko ñoom ku ci nekk mën na la lii ak lii nga ma yoral. Mhm. ñu bañ. naan ma waaw dangaa ñàkk fayda lu tax Ndeye Ndiaye di la def loolu lii nga di ko def ma ne leen mais am naa ci droit Ndeye Ndiaye jël xewam jox ma ko du ma ko toppatoo ba <laughs> war ma ko toppatoo nañu waxante dëgg. dama ne. nit bu ñu ah. la joxee cër da nga koy téye. ndax na Ndeye Ndiaye waxtaan ak moom. waaw. ni ko man mi sa jëkkër sax. bu ma yemaleeg asu ndax bisu mucc. yàlla yemawulu koog lenn am doom. Hmm. ba muy am doom. am doom métti woo ko tëkkalee sunu borom duma la keroog ba muy am doom yow la woo jox lim nga taxaw ko. nekk ndeyam nekk baayam nekk léppam. Hmm. kon bu la joxee beneen cër bi mérité nga ko. Hmm. ma ne ko nag sa yaay yeeg waaneem këram bu fi ñëw ba yàq sa xel mi wax ci lenn. yàgg yàgg de ñibbi. wa wa voilà te yàgg asu ba faw la. yow ba keroog dafa mel man maay matu. sama tànk yi paralysé solu ma daal ba hôpital. la ma ci gën a neex taxawu ba keroog nga nekk ndeyam nekk baayam. nekk magam nekk ah, léppam. waaw man booba ma ba ba ma yóosin maa ngi lijjanti ji. mi ngi noonu ma bañ ma yoo maa ngi lijjanti nekkuma fa. yow nag ba dégg nga waaw. Ah. Mm. yéen da am loo war a def. mooy lan te ba yaa ngi seetaan. lu may seetaan. ah ba xew mi bientôt. waaw mi ngi ñëw na egg si na waaye san ndaw tali nooy def ak moom. ndaw tali ndaw tali moom dinaa kii man kay lépp dama ne woon sax ñu bari ñu ngi may envoyé li ma jaaxal sax man mooy mais man sama orange money bi. bu may def deux cent mille mu ne ka rek te plafonné te man nag oo ma jot seen yu soof yooyu ñuy def ay ñëwal indi sa kaay ñu def plafonné ak oo ma jot googu waaw. wuyu ba yow ban monde nga nekk léegi. ban monde lan. onaat danoo yabaate de man oo ma jotuk déplacé wu ñu may déplacé. yow nag yow yaa yabaate. Ah. yow yow mii yaa yabaate yow yaa xamul. yow li ci orange orange di toj dëkk bi orange moo ne nga xamante moo xew ci jamono ba application orange dafa sonnati. Ah. defal man foo ma fekk maa ngi application sama. Ah. jëlal application lii mooy application orange money. waaw du gis nga application bi. waaw gis nga lii. moo compte gis nga. waaw déplafonnement du mi ngi nii. waaw man damaa déplafonné ba pare. te fi mu doo dem fekki leen sax nga. mukk doo déplacé wu fi nga toog nga koy def ba pare. Ah. li ci ne. waaw ñu bind. voir moo solde. waaw xam nga man damaa tëj sama solde. waaw fi mu toll nii mënoo xam ne nekk sama compte. waaw ah waaw baax na léegi yow lan moo la tere indi jox ma sa téléphone. ma téléphone affaire bët bii lan la ci nii bët bi bët bi mooy nëbb duñ ko gis bu fekkee ne da ngaa bëgg fu wane sa xaas fang dang nga bës ko bu fekkee bëggu ku la xamal dara te comme yow ni ngay nëbbatoo fii rek ngay bës orange ma ne doy waar de ma ni la jox ma ma dugal la play store bët bi de ñoom dong ko am téléchargé la application bi indi sa téléphone waaw ndey xaaral bañ dem ci yow taxa indi sa téléphone dama ni xaaral ba ñu dugg ci biir nga defal ma. ba wax ji fii sax bëgguma ñuy waxi Orange Money ak Ndawtali ñu ngi dégg. fii gën nag. yow da man nga ni lii daf maa ñor. nga ma liñ may amee daa war a bari. waaw wuy ma léegi su ma Ndawtali yaa ngi jógee États-Unis ak France ak Italie ak fu ne. waaw waaw déglu pare. waaw man danga may jox ma dugal sama compte. waaw di nga dugal a yow bis nga war a jaaga jeeg war a joxe. géwél yi war laa dar ni ko ah du dëgg ana ah, téléphone bi. mi ngi nii mi ngi nii waaw jox ma ma téye ko kay pour xel dal dama laa bëgg a application play store xoolal mi ngi dugg play store taamoon la bi bu ko fàttee de bëtu orange mo ne boo duggee nii play store xoolal da ngay Euh, rafetlu naa jotaay bi loolu waaw sama gan gi ma leen di présenté munu ma leen koo bëri présenté ndax ñii nag sama waa ji uh-huh. dañoo doon ci man lu rawatina kii waaw sama aaw bee mm-hmm. moo ma ko may rakama ñuy waxaat mu dolli ma ah, ah, jël doomam jël doomam jox sama doom. Ah, naw sa jukko doom ko war <laughs> waaw bu day jabar moom am nay këram moom. Ah, ay jabar waaw waaw mm-hmm. waaw dégg nga ko. Mm-hmm. kii maa ngi moom sunu ndaw ba suñu ngand. Mm-hmm. ñoo tojandoo fu Thiès noonu HLM route de Dakar Somo Jaxaaw fépp Aliou ñoo ko tojoon waaw dégg nga nee na rumbu ah? na ma benn toj caa bi ñëwaat bu <laughs> tëgg tas <coughs> bàyyi woon na ma fi toj caa bi ñëwaat mm-hmm. Mm-hmm. dégg nga ko waaw mm-hmm. eh, kii nag yàlla boole ma ak moom muy sama futur goro ndax doomam di bëgg sama doom muy ku baax boo ko waaw waaw waaw boo ko gisee nii. di ko xeeb waaye doomu aadama yu bari mi ngi leen dimbali. te léppam ci sutura. ma ñëwoon nag di leen ko présenté. waaw te xam ne sama waay la sama lépp la. waaw may jégalu nag ndax eh, course gi kol gi. ku ne nag nga jaar jaar. waaw waaw waaw comme ni nga ko waxee rek. nu ne def nan ko. Mhm. waaw ñun fu na toj nan ko. waaw ah, toj ngeen moom ñun ñii. waaw toj ngeen de. oh le bon ah. yi. Hmm? Ah, suñ maa ngi jéem. ah <laughs> ndax te kol gi kol gi ak kuréel moo tax moom am nga rek. <laughs> ah. kol gi day. cay bañ cay toll. Hmm. ah de Dakar. doom ba wan. ah waaw yi. bon bal yàqu na. ñoom Éric Mbacke Ndoye dem si yàlla si. ndeysaan bu mosaan yëkkati. laay laay baal yàqu na. cum maa la wax ah te nga daan ànd ak élégant. Hmm. civilisé. rafet loolu kii xale bi ñëw fekk ko mu toog alors ma sœur mu permettez. yàgg naa toj de mu jóg naan <laughs> te lu ko gën tam. man ngeen du ngeen soppeeku ma. non non dañuy fàttaliku nag. toi aussi mais mu taxu la seet leen xool leen seet leen seen bopp. Ah, yow ah? yow yow démb la ñuy wax. <laughs> lu tëgg tas. waaye nag dootu leen gone magum jëmm ngeen. Euh, ma ne. sëñ bi kii li muy wax nii. Hmm. man la ciy sóoraale. Hmm. Euh, kol gi du pour baat. Ah. Ah. kol gi pour ndigg la. Ah. mu eh, kol gi dama koy décorer nii rek pour ndigg la du pour baat de. Hmm. danga nga dugg foo xamante ni. ba ma fay dugg boobu yàgg na. mu ne. dugg léegi. waaw ba ma fay nekk boobu yàgg na. dama daan def costume bu tooy xat. cub ah waaw xale yi fecc nu xale yi léegi nii la lepp si loolu baaxul. indiscipline jigéen da koy respecté. dëgg la jóg jàkkaarloog moom tala ko sa mu teg nga jóg nànk raam ak moom. waaye léegi. ah pecc mi yàqu na. pecc mi yàqu sëñ bi. ñun ñëpp maase. kol gii ngay gis ak kurus gi di kii la rek. kii la rek ñii maa maa leen gën a kàccoor foofu. <laughs> kon yow safte ros nga. yaa gën a yaa koy bàyyi ce qui est le corazón. isaan para silencio silencio. o oh, yaay. amana na grastrani. hokke ah, ah, hokke gote hokke bi dafa gaaw. ok bi dafa gaaw dafay wax ok jël suufur doxaat ok jëlaatal jëlaatal sokkili mini corazón para sin en silencio amanana grastrania hokke nokke ñocce baali mangoog tambour bani geng geng ah? mm. no tempo bi baaxul de ah? waaw mm. sa hinda kamul laamu xeer ah, parce que dama nga koy def mm-hmm. te de man jaruma jaruma roos maa gën a bandi ñëpp jaruma roos damay nekk kersa <laughs> ah mooy yow damaa jar kersa <laughs> kersa trois pas nga ni waxal ma ne la waaw quatre pas nga koy def mhm. yëfi mag waaw mais <laughs> ah ah mais gis nga jigéen dafa am nooy fecc ak moom mhm. mais gis nga soo jógee mu ne ko mademoiselle mhm. mu daal di jóg xëy parfois bu ah? neex ah. danga koy dar ni Darmendra. oh dar <laughs> cung. man nag fecc yëpp waaw Darmendra. Uh-huh. mais gis nga soo nee nii. Oh. Oh. <laughs> boy kii dafoo quatre pas de. non déglu ma quatre pas de. wuy ma dafa baaxul de. damaa yor njàpp moo tax. ah yow yow njàpp yooyu daal moo fi wax. lu tax foo gis mu sol caaya. ah waaw waaw day bañ lu ko bett. day bañ lu ko bett. mas na faa toj benn biir goo xam ne fanweeri si sa juróom-ñaar la ñu fay. Oh! déedéet waay gars yi dañoo tëgg jëkk baaram bay ji bar mu naan eh. wax na dëgg tata kirki sa tata kirki sa eh góorgóor sa góorgóor mais gis nga foofu nag foofu gis nga wax na dëgg Baara Mbaye dafa war a diir oh. Baara Mbaye dafa war a diir dama ne Baara Mbaye dafa war a diir dama ne bàyyi leen waxu Baara Mbaye waxu salsa la ñuy wax fii waaw waaw waxi salsa boobu sax laa bëggoon ñu ñëw euh, am na ruq boo xamante ni hmm. faaw ma invité leen fa yow mi waaw dama am ay ruq nag <laughs> am ruq yoo xamante ni faaw ñu ànd fa ah? ku ne def sa yëre bu baax. def sa kos. Ah. ñu ànd bu ko soxna yéeg nag ànd ñoo kenn. ànd ñoo nag yow ñu ne ñu neen la waaye. xam nga comme yóbbu sa xam nga ne Secka xam nga oh! ah, sama taalibe la sama ah. way bu ma nekkee ci digg àll moom laay déglu. Samba Alar. ndeysaan. xam ngaram. ndeysaan. coppil ci ko coppil. way ko ci temps bi way ko ci temps bi. jëlaat way ko ci temps bi rek way ko ci temps bi rek. ma foofu dina ma neex. foofu ngay wax ruq boobu. dina ma neex. Mhm. da nga koy dem si ka sama waay la. Ah, sama taalibe la. jeex na muy yéen sama taalibe dem boîte ba fee mu may dem di toj. man moom bés bu ma xamee kañ la. Mhm. xam naa na may def. Hmm. damay tàggu benn dëj laay tàggu. ah ah bu daal bu ray bu doomu kenn daju guddi amul daju yaa guddi bu dee dëj xaar ba beneen kon nga dem mais dëj tàgguñ ci ñun nga jëm jeex na. tàggoo ay daj guddi fu ma waaw. ah, ah waaw yow tam kii dafa rafet la ne sama waay ji Mbaye Niang. al Mbaye Niang jërëjëf ji poño ko te foo dem arbitre la de. Mm-hmm. foo demoon guddi foo newoon ci guddi mu damaa arbitre ñu pour pour année projecteur yi pour mu ne daa arbitre ñu. waaw soirée boobu maa koy toj. li ma la mën a wax daal mooy ku nekk na nga ko waajal. Ah? dama leen di bett rek. damay xëy rek ni leen ngoon ñu dem. waaw jeex na. ñu dem ànd ak Seka toj fa ndànk te mm. yow. des na ci yow man dafay wut ab ruqam. man ba may toj ba may ba may toj dëgg mm-hmm. ñoom Labba Socé. Oh. Ah? waaw. Mm-hmm. ñoom Éric Mbacke Ndoye. waaw ah. Oh, ñoom Mbark Samb xam nga ni Youssou. waaw ah war nañ ko delloo njukkal. Youssou war koo ko delloo njukkal. ñëw ku mu neex mën ngaa invité. invité loowu ma la kenn kii yëppal naa kii dañ koy dàq ah. yow mën a wax nga eh, ah. Eh, li ngay indi yëpp di nga ko fa fekk. lan ah, nga yóbbu yow doo dégg. booy tukki yow yor di fa fekki bagage looy doy bagage. looy looy looy damaa yor looy doy ci benn laxaskat ci wet. waaw la <laughs> loolu mënu cee ñàkk. nekk nag war na ma a. déedéet wuyu ma yéen dama leen di jàngal système yi bandi booy dem ci ruq yooyu doo yóbbu laxas ndax da nga fay fekk laxas dégg li laxas laxas da lay laxasoo waaw waaw waaye am laxas yoo xamante da ngay ànd ak ñoom laqar ci ko rek ñëw toog <laughs> ma ne la sa waa ji kàngam la ah, yow tam yow tam lii lii la rek lii d'accord la rek ah ka ne kala gi ci bopp ci ndigil la jóge kaala gi damay toog ba yàgg rek ko ni ah. <laughs> fii moom fii fu mu fii nu mu tudd cub ndigal la jeex na kala gi ci bopp ci la jóge yaa jee kal ma ñëw kala gi ci bopp yaay di yenkal ma ñëw kala ki ci bopp ci ndigal la jógee yaay di tax ma ñëw tatam atakin ran ki ci ngel kun gur kun dara lañ yàlla teel tam aramu aramu bégal sa bopp aramu waaye démb waaye démboo neex xale léegi faw nu dañuy fawantu rek ay ay ay ruqba ah. ah. Warakilen silencio. Warakilen nasranía. Oye, yo no que lo quiero malo. Yo niño damos la mujer para silencio, silencio. Amana nasranía. Oye, yo no que yo quiero mal. Dale mal, dale mal, dale mal, dale mal, dale <laughs> eh boy wuyu ma. waaj leen yéen yéen am ngeen safara kat waaj leen waaj leen waaj leen léegi nag lii ngeen gis doy na ma. waaj leen. seen poste bu leen ci def dara lépp mën naa koo res. Ah? ah waaw waaw. kii de day abbe xam naa ne waa mu jënd waa ndax ngeen doon na yëre tubaab yëpp bay soli. dinaa la dinaa la jox loolu maa ko seet. Sika moom nag su ma fay dem hmm. ah. saa lii moom du ma ko bàyyi sama benn jarbaat na boutique Adama ma Adama mën na laa baaxee wes baax na sama benn jarbaat ndax xam naa ni yoratoo wes xam nga ni lii Sadio la de <laughs> <laughs> mani Fall lii Sadio la yàgg na ci jaar ah, jëf jëf yi jël jëf jëf yi keccax booba ganaar amagul <laughs> jëf jëf yi jël jëf jëf yi keccax booba ganaar amagul jëf jëf yi jël jëf jëf yi keccax booba ganaar amagul jëf jëf yi jëf jëf yi baax na baax na jërëjëf nii la àdduna nii déggal lii maa ngi jàng la nii la baax nii la baax ko def ci fi mag mu yem ci ñun jeex na jeex na bu dara génn ma ne la wuyu ma na rattax koo ah, ah, ah, bàyyi na ko bàyyi na ko su soxna yi keppee dootul xamante lu muy wax am naa sa problème Adama na la abal wes am nga dara na bien madame comment tu vas bien ça bien alhamdulilah na waa fii laa dëkk ci koñ bi ah oui oui je ça va yenn saa yi ma toog fii di seen ngay ngay ngay def nii la dëgg la ça va naka sa borom kër ça va ñu ngi fi ça va bien ça va bien les enfants alhamdulilah oui ça bien naka tabaski bi baal lañ ñàq waay baal lañ leen yàlla ñu yàlla boole ci gër ñu fekkee ko at yu bari mais yéen commerçant yi dama leen a mer moo tax man pour baal leen ak sax problème la ah yéen li ngeen def ci digg dëkk bi lu toll ni jour tabaski ngeen yokk soble dëwlin kaani poob amul dara lu ngeen yëkkatiwul ba ci kaw te yéen tamit war ngeen a xam ne ñun ay jullit lañu lu tol ni feetu événement événement wu tabaski nga xamante nii jullit ñëpp dañ koy feete ñu dul jullit sax dañuy feete événement bi ngeen yéegal niveau yëpp loolu fu ngeen ko teg tamit. mais yow lan la yow xamuloo yónni si ñun. kenn yónniwu ma. Ah, dana yónni si man yow Thiam lan lañ ma yónnee ci yow. mais dama lañ ma yónnee ci yow lan mooy sa problème yow. li ngeen def rek laa leen wax. Ah, lan la ñu def nga ni. mooy li ngeen def. defuñu dara. saako soble ñu koy jaayee 6000 7000 4500 sax nga am saako soble ngeen yokk ko ba 11000 francs loolu jaar na xam ngeen ne tagu leen ko fenn pomme moom kilo 1000 francs pomme nga xam nga xam 350 nga am kilo pomme de terre ngeen yokk ko ba 1000 francs yéen xam ngeen seen alal ji ngeen di lekk sax lewul. mais yow lan mooy sa yoon si suñu alal yow. fukk la ci ak juróom-ñi lan mooy si sa yoon si suñu alal. ah lan la yow kamoo la yoon yow yow yow xoolal soo bëggee syndicat nga dem rek la si syndicat wala su fekkee association de consommateurs yi ñoo la yoon ni ci man di nga xam ne caam nga fi fekk yow quel est ton problème. la wut sama looy wut sama sax yow. jënd moo ma fi indi. jënd yow fa nga daan jënd fii. ma ne fu ma neex laay jëndee ndax maa moom ah, sama xaalis yaa moom sa xaalis mais soxna si yow bare nga wax de <laughs> da jënd wii wu noonu soo mënul jënd nga génn sa boutique un point un trait. damay jënd da ngay jënd waaye dama leen di wax li ngeen def. dama ne li li xool li ngay ngeen li ngeen teg tegul li ngeen def tegul fenn. dama ne li ñuy def yow xam fu ñu ko teg soxna si. guerre Ukraine moo fi nekk. waaw. guerre Ukraine bi lépp la ñu yokk lépp yokk man la du ma jënd sama marchandise cent franc di ko jaay fukki dërëm non je ne le ferai pas. ko tegoon ci yoon su cent franc wala 150 francs yokk sama bénéfice. wax keneen toom problème yow yaa bari wax waa yow. wax ji dafa doy qu'est-ce eh, da nga jënd. kaani am na. voilà loolu laa bëgg a dégg. mën naa sonn ndax man dama tàng nga may yokkal dama am na way poobar am na. sonn si fii lépp am na fi. soble. loo bëgg am na fi. pomme de terre. déggoo li ma la wax saako nga jënd wala par kilo ngay jën eh, ah bu ma laaj damay jën voilà ndax maa mom sama xaalis. ana Bouda ana Moussa ana boy bi ah. ala mbura wàcceel ko lépp mu ñëw. waaw yow wàcceel ko lépp waaw. Eh. waaye na gaaw rek voilà na gaaw. wax ci bu mu bari na gaaw. est-ce que c'est ça jaay ma fii sax kii bàyyi ko jaay ma kii boisson bu 350. ma bàyyi la. jaay ma boisson bu 350 bàyyi li ma la wax yëpp. mais yow soxna si yow yow kan nga yëpp yow téye sa xaalis. Ah. sa xaalis. loo ma ko téye. doo téye sa xaalis waaw téye sa xaalis waa yow. da nga maa jaay yow jaayuma la yow da nga maa yëpp wala lan. war na la ana soble ana diwlin ana lii. ma wàcce lépp dana am la mooy sa yow jàllal fële yow xaalis da nga koo for yow amoo dara yow baadoo la nga yow doo nitu dara yow yaa bon alors da laa yónni si man sa mbuutik bi da laa yónni mais sama ki la yónni xoolal soo demee ne ko caa dox ma dàq si biti alors ça c'est quoi mais kii yeewaatewul ah waaye yow. mais qui elle est indisciplinée cette femme là bu duggati sama boutique un point un trait voilà. nu mu demee nag. ah Binom na mën naa la nag. maa la doon maa yow kay ah, dañu maa bàyyi. doo doxantu sax nga jaar kër ga. <laughs> ñàkk jot rek Binom. ndeysaan. xam nga it man moom. bu uh-huh. ma di bëgg a déranger. ah non foofu amul dérangement parce que kër ga bëriwul. man xam nga sobuma ni Ndeye Ndiaye moom. ah waaw Ndeye de ñëw na daje <laughs> dafa ak man. waaw wax nga ma ko de. ah wax na la simulation boobu. dañuy toog toog lu ñëw ci kër gi di conseil booy conseil doo conseil lu. leen dafa naroon a fanaan ma ne ko fanaan ma wala maa daw. ci biir it wax dëgg laa ko fekk <laughs> ba loolu laa ko nappe tey rek mu ne bëri na taw ci biir. <laughs> mais à part ça. ça va sant. Eh, mën nga ma wowal bàjjen mu génn. maa ngi ko laaj tuuti. na ba moom dafa génn xam naa. ba waa bàjjen de fii la nekkoon léegi. bàjjen bàjjen. bàjjen bi néeg nag <laughs> ah, xam naa léegi mu ñëw de fii la nekkoon ah. léegi. Eh, waaw waaye. waaye waa yow naa def kañ yow ñëw. eh jugal fii mu toog fii ah eh jugal nga dem toog fële pousse la sa xasa waaye dégg nga jugal fii yow yaa xam pousse fii euh, kii asu. rus naa la ah. kii laa jar a couvrir. ah couvrir ko de moom kay damaa xamul kañ la génn kañ nga génn. kon da ngaa ci woon yéen li dundee. déedéet ah kay parce que pourtant nga koy couvrir am na ci intérêt boo ci nekk. déedéet ah kay. Euh, li may mën a xamal mooy lii complicité lañ la mën a woowee yaa ngi def complicité nit bu sàccee dara ñëw jaay la yow boo ko jëndee reseréer nga. sàccul de non dama ne sama newul ci loolu. bu da nga koy couvrir ci ñàkk fay di nga xam ci këram da koy tere léegi yow nga koy couvrir. man couvriruma ko de moom tàgguwuma de man xamu woon fu mu dem. kon da ngaa togg woon nii cim ngay xeeñ sa bët nii eh. tooñ ko baax. ay waay bàjjen génnal ci togg bi bàjjen génnal ci yow kañ ngay bàyyi togg yow yow mënoo bàyyi togg yow lan la yow sa ah yow doo dem sëy sa sëy bii ngay wër ci kër yi fu ne nga dugg fa togg ah. léegi géwél yi sax dañuy toog seen biir kër woo traiteur mu toggal leen yow bàjjen yow ngay wër di taxawaal gér gu set wecc ni yow waaye yow bàjjen kañ ngay bàyyi li ngay def. du bàyyi li kii fëgg table bi sama naw gi nee na réel. di ma toroxal rek dina la toroxal ndax yaa toroxal sa bopp yow kii yow loo manqué ci këram gi. parce que xam nga man damaa bëgg toog. man damaa bëgg toog mu mën a sangu ji. matt rek ngay xeeñ. ah ruus yu ma tey de Fane Ndiaye Fane yu ma sax tey. waaw yaa ngoon ci matt mi xam nga lu la leen gaz. pardon. Mhm. baal ma ci jotaay bi ma sàkku. ki man maa ko wóolu. Mhm. su Ndeye Ndiaye laa xam woo ko. tax nag may ñëw di ci wax moo ci wax lu ax parce que ki mu concerné la muy awa sama rakk la te awa dafa am ci lu mu génn te li mu génn dafa am lu ma ci dox ba loolu sotti. donc waruñu seetaanaat awal di def ay erreur wala mu ciy dugg papa nag j'étais très déçu hmm. te kontaanuma bi ma déggee ni kii dafa jël awa ànd ak moom dem weekend à Saly yaay ma ko bàyyi eh, déet papa dañ ne ma yow yaa ko bàyyi hmm? moom ci boppam nee na ma yow yaa ko bàyyi waaw loolu laa ko ma ko góor gi moo ñu bàyyi ñu dem loolu laa ko xam paa bi moo ñu bàyyi ñu dem parce que dégg naa papaam dafa am xaalis bon ñëw na ci kër gi tuut fi xaalis lu ngeen bëgg mu defal leen ko kii aussi ñu bàyyi ko muy mbaran lambar lambari ci biir kër gi lu mu bëgg ci awa da am fu mu ànd ak fu mu bëgg dem ak moom dem fa ak moom papa man jàpp naa bu ma génnee ci kër gi am na loo xamante ne waroo ko seetaan ci xale yi. man seetaan na ma xam nga man yaa ma téye woon sa bopp freiné ma sa bopp yaa ngi dégg man waxe awa ak yaayam mooy loolu ma toogee ne boo fi nekkoon xam nga sama yoon du ci dinaa bàyyi nga yaay ji lu mu ŋànk lu aw wax moom la àndal loolu ko daloon ci be yaa ngi dégg. waaw mais kii kii papaam man ak moom yàggante nañu xamante. Ah, waaw seen nawet ah, loolu ko dal waaye si xool yàgg nañ xamante dama ko gëjoon gis xameetu ma ko. si xool mais seen dafa am xaalis de. Hmm? waaw moom moom moom yor na moom. yii seen ko am xaalisam mun na ko wax ay fii dafa am xaalis rek day def lii laay moom ba mu fa di jooy. am man boo ma fenal ñoo ma fi doy dama ñëw di ko expliquer sama ngénte mais ñoo fi doy booy danga may fenal. waaw waaw moom moom loolu la ni la ngénte li waaw day gën nag lépp loo lu jëm si ngénte li seen papa kay. waaw man dina ko def comme doomam dafay bëgg a jàppar mais ñoo ma fa di jooy. waaw mais moom mooy loolu la doon wax rek xam nga maa ko. bu ma fenal booy. maa ko Saalum de mooy ba nga toogee la ah. la wax ma dem signé kooku sax mu ko ay nag ak lépp lu jëm si xaw mi da koy def. waaw ah, loolu. jeex na nga bàyyi la nga dem fa di jooy quoi. non yooyu sax xolam mu ko mu ne ma dafa ñii sax ko yëgal xel man ne ko wax damay wax ji ngeen mu ne dina bàtt si bi dina ma jox nag du ma ko delloo ce qui me fait mal ah. loo def foofu garaawul yow la concerne ah. mais kii warul jël ay xaalis di la ko proposer pour ngay jël awa di ko sacrifier di ko bàyyi ak moom parce que il m'a carrément di devant Ndeye Ndiaye que da nga décalé woon fenn mu décalé la te le sujet ça concerne nga sacrifier booy man lii rek moo tax bëgguma fi bàyyi xadi papa awa dafa am ci lu mu jóge tetaar xaw ma tetoor. tetaar tetaar eh, eh, ah, tetaar. Eh, merci. Ah? papa bu fekkee da nga pare pour may ko jabar amul problème parce que awa mën ngeen ko sacrifier moom nee na bëgg na nan ko may. non sacrifier ko ay ah, yaay moom da koy may te il faut nga xam ne awa aussi dootul mineur ah sëy na bataas. yaay moom yaay elle a le droit de faire sa vie quoi. waaw non am na droit bëgg ku muy bëgg mais may moom ay kilifaam ñoo koy may. affaire boobu xoolal nañ ko xool nañ koy gérer après. moo gën ko parce papa dégg naa la bu baax quoi. parce que yow nii nii nii nii benn objectif nga am parce que da nga jëm ci ngénte dégg nañ la nag ak ay gëléem donc ki ko dikk fi mu toll lu mu bëgg da koy am quoi. kooku du wax sa mbaam sa mbaam bu la waxee suba lay dee gasal ko baabi. dina ma jox nag. wallaahi xaw ma yëpp koy def keroog ba nga ba nga ba nga ba nga paree noonu la woote. billaay koy waxtaanee rek amul benn problème grave waaw. ndax yoo xam nga yaa xamagu sa mbaam bi nga xam ne sa mbaam de kooku Màkka lay nekkoon maçon xanaa déggoo li mu la wax Màkka amul bâtiment bu fa seen papa tabaxul jël ay nongaam indi leen ñu koy ñaanal di ko tabaxal ay kër mhm. si yi si lu de xamoo ko si si ngool si kooku bu lu mu la def ko seen papa dina ko nit ay wax ay wax ko ba lépp luy ñuy dugg danaa la lii ak lii moom neen sax bu mu wax nit te duma ko def loolu baaxul mhm. saa yi Màkka ba fi nekkee doon xaaral alkaati la. du alkaati daa mën a saaga